yow what's up, my nigga? Guess who's back? Malachon is back, aka. aka uh, <laughs> yéen ma gën a xam aka du ma xamal sa rappeur aka the best channel via YouTube aka mooy loolu kaa kaay kaay kaay jàng kaay jàng yéen am seen kaay jàng ndax fii la mburum yu xoyam xoyamee quoi fii la fii la lépp di leeree quoi fii affaire yi quoi bon sama gars yi tey dama am benn sponsor officiel muy. Uh, Euh, mon ami mon frère you know what I'm saying my brother from another mother yaa ngi fi mu tudd Jim nekk fële ci Wakaam tu vois di jaay ay iPhone yu mucc mucc mucc ay iPhone 2 iPhone 12 pro boo bëgg nga dem mu jox la ko tu vois te da koy garanti te day dépanner day jaay en gros di jaay en détail te da koy suivre nag garanti ba pare am na équipe de dépannage enterprise la yor foofu noonu Jim mu ngi Wakaam numéro mooy 77 515 15 16. 77 515 15 6 sama gars yi tey lu may wax mooy lu may wax hip hop gën naa wax ci bopp but euh, tey bàyyi ma may leen tuuti tey ci wax ci mooy maanaam tey jii ban label mooy euh, mooy diriger game bi ah ban label mooy rule mooy rule this game te man sama humble avis mooy label bi euh, bi bi diriger game bi fu mu nekk nii mooy mooy reptile music ñoom ñooy ñoom game bi fu mu ne mu neex mu naqari ñoo koy diriger léegi je m'en venir à mes explications pour gars yi ki sàkk naan ki day nelaw quoi ba ay reptile ki dafay mar nii ki dafay mar taat ki dafa bëgg gars yi kii ma lay jox après boo dégloo rek di nga comprendre quoi mais seetaan ba ci fin mooy mooy game bi tey ji boo xoolee MC yi nekk ci game bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yi kàtt ne music mu ñu nekk en ñu nekk ci label bi fu mu ne actuellement ñu nekk ci biti tey jii boo ñëwee dib moo fa ne euh, Samba Peuzzi BMJ ñoom ñett ñëpp dañuy cartonné ñoom ñëpp ay cartonné bien que BMJ mooy jël moo jël or Samba Peuzzi jël euh, kii euh, argent BMJ fu mu génn album dóob confirmation ah a jël place mais moo jël troisième te ñun ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi door léegi boo génnee ci label bi ñenn nekk ñu nekk ñu nekkul reptile ñàlla ñu ñoo xam ñu ngi bon game bi fu mu nekk nii doo jéggi woon lyrical doo jéggi xàkkeel tu vois donc mu nekk ay cinq majeurs yoo xam ne tey jii ñu ngi tasaare game bi te ñoom ñëpp rek te musique la ñu nekkoon tu vois dafa mel ni rek PDS bu mu tasee Abdoulaye Wade bu mu fi jógee Macky Sall moo ñëwaat nekk président Macky Sall fu mu nekkoon PDS donc PDS ba léegi mooy diriger Sénégal donc état d'esprit boobu laa la rupture mooy diriger game bi yeneen MC yi fi nekk en dóor di xaw a bañ bëriwuñu ñàlla Akhlou Brick la tuuti tu ak gars yi nekk si tuuti ni mais Akhlou Brick Elzo ñoo xaw a kii mais après gars yi tout le contraire nag du man euh, du label bu melni Buzz la parce que Buzz la euh, dafa doon rôle game bi ñom ñoo jëkk make dream xam nga inspiré gaay ñoo inspiré sa boy nek reptile tek ay label parce que ku fi tek label baas mo fi jëkk tek label xamu woon lolu mixtape tamit baas moko fi indi clip yu baax baas baas moo fi indi mais la différence entre reptile et Buzz la mooy euh, bi Buzz la tassé manam les deux camps ont perdu ñi tok Buzz la ils ont un problème à à redorer le blason mais ñi génn tamit tojuñu boo jëlee ay ay J21 ay tàkk fay lañ dañuy def ni rek comme jeu de lumière ci bal, quoi tu vois projecteur game game bi euh, ay bëgguñu nga boy affaire 4K tu vois. boo gisee Omzo daal ba mu nekkee fële euh, ah mixtape bu dëggantaan bi man man amoon na ma avis ma daaxal album kii bi ma daaxal album kii bi euh, xel bët xel xool xamu nu xel xool xamu nu tudd noonu quoi tu vois ba ca cata ba dëgg làmmiñ moom ma am ba dëggantaan moom ma daaxal boo jëlee ay son mel ne muerte Omzo Dollar defatu ko son mel ni ay ceebu jën penda mbay defatu ko tu vois ay yeneen ak yeneen ah ñi génn mënutuñu def dara ñi fa des mënuñu def dara d'où euh, la différence entre reptile reptile ñi génn ñi ngi toj te ña des tamit ba léegi ñi ngi toj moo tax mu ne reptile mooy diriger game bi donc yeneen label yi fu ne nii ngeen ngeen ngeen ngeen label yi sax bëriwul au Sénégal vrai label bëriwul fi quoi tu vois studio ngay teg rek sa benn micro am nga label mais jëm ngeen teg ay label ngeen concurrence quoi ni bë reptile ñëwee détourné buzz lab yéen ngeen détourné le tir gars yi ñëw gën a tàng mais vraiment reptile moom monopolisé na game bi ñu ngi torturé gars yi mi ngi mel ni benn ah benn massacre noonu quoi donc sama gars yi tey ma la coon lii la waxoon ci bopp bi dem leen ngeen déglu son bu mel ni xaaruma dara ci yéen bu xàkkeelu xaaruma dara ci yéen son boobu motivation la quoi day tax nga gëm sa bopp day tax doo doo yow da ngay gëm sa bopp da ngay dooloo sa bopp quoi da ngay am rage quoi xaaruma dara si yéen son boobu maa ngi koy gaañoo lu bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri tu vois neex na trop quoi euh, naa ñëwaat naa ñëwaat naa ñëwaat naa ñëwaat ci mon lyrical